Eh, jaa ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi rafetlu ànd bi ak ñun Touba Argentine TV ñu ngi am mbégte nag euh, dalloo jëwriñu fédération daayira Argentine di sëriñ Mor Talla Sall ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci euh, nangu gi mu nangu invitation bi eh, kon xam naa rek sëñ Talla bu ñu la nuyoo ziar la bu baax xam naa bu doon sàkkoo nga defal ñu benn nataal ci sa jëmm kat mooy sëñ Talla. luñ ci mën a dégg ginnaaw nuyoo bi ak jaar bi alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maolana muhammadin lil makin ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci nu sang sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifa sëriñ muhammadul muntaxa mbàkke mu yàgg fi loolu te wér di lu nuyu baax siñ góora di nuyu mbokki waa studio bi yëpp di ñaan suñu borom saxal fi jàmm def fi tawféex joo xam ne dana kawe njort bi néew bi jote na kon ñu ngi doon sàkku benn nataal rek ngir ñu xam kan mooy sëñ Talla ñu ci mën a déggee ci lu gàtt ci tënk. waaw alhamdulilah rabil alamin waaw sëñ Mor Talla Sall benn donga la di taalibe sëñ Tuubaa tudd Mor Talla euh, dëkk senegal juddoo dëkk bu ñuy wax Càlle yaroo fa yàlla dogal mu nekk taalibe Daaru di yëngu ci maanaam lépp loo xam ne dafay jëmale yoonu sëñ kanam ñëw fii ci réew mi continuer ànd fee mbokki taalibe rek yàgg daan ci yëngu nag lu yàgg ba yàlla dogal mu ñëw fii continuer activité yooyu rek kooku mooy Mortalla Sall. wàllu jàng mënees na dégg ni def nga ba wàcc kaamil jàng arabe français wala lu ci mën a déggee. waaw jàng alxuraan comme ni ko doomi soxna yëpp di defee rek jàng alxuraan ba ba mokkal ko jàng maanaam arab bu baax def ay ku ay français moom def nañ ci tuuti rek waaye nag nekkul loo xam ne lu lu bari la waaye teewut ñoo ngi ci jéem naxante ndànk-ndànk daal. waaw waaye nag français moom jotuñu dugg école français moom wax dëgg yàlla waaw. ñu lay gërëm nga fees lool ci liggéeyal ku tedd kii ci wàllum daayira bi nga nekkagul jëwriñu daayira sëriñ Touba ràññeeku nga ci daayira bi nga xam mooy daayira sëriñ Touba bi ci yenn poste yoo xam ni yaa ko daan seere di ci jëf-jëf ju am solo te yaa nekk jëwriñu fédération bi xam naa nag ngir nga nekk ko du ñàkk ni mbooloo mi ñoom ñoo lay tànn jiital la ci bopp bi boo ko nangoo itam ci kaw nangu gi da nga am foo bëgg a jëme liggéey bi wala bu fekkee ni itam yow yaa sàkku ngir ñu fal jëwriñu fédération bi danga am foo bëgg a liggéey bi nga leelal lu rek kon lan moo tax nga nekk ko ak it tey lan mooy say mébét ci projet sëriñ bi ci dëkk bi ak liggéey ku tedd gi fii ci dëkk bi alhamdulilahi rabil alamin loolu de dañ ciy sant sëriñ Tuubaa bu baax a baax rek ndax ñun naka jëkk liggéeyal sëriñ Tuubaa dañoo neex euh, ñu di ko dund depuis ba ci daara ja ba ba fi ñu nekk bi yàlla dogalee tamit ñu jógee Sénégal ñëw ci réew mi fekk fi liggéey Serigne Touba euh, bi ñëwee ñëw rek maanaam dañoo dañ fay fekk liggéey Serigne Touba ñu daal ci tabbi biñ ci tabbee tamit ànd ko ak mbokki taalibe yi wax dëgg yàlla fekkoon na liggéey bi di dox waaye biñ ñëwee tamit ñu daal di dugg ci biir dox googu rek ànd ak ñoom di doxal ci loolu la ñuy doxal ba mbokki taalibe yi wax yàlla miinanteeg ñun daal ñuy daal ñuy daal ñuy présenté maanaam waa daayira bi ñu jiite daayira bi waa daayira bi daal ñuy tabbu ci poste yi nga xam ni maanaam mooy secrétaire général bu daayira bi moom laa jëkk a nekk boobu 2009 la diggante 2008 ak 2009 bi ñu jógee ci loolu tamit ñu continuer mboolem activité yi nga xam ne mooy doxal daayira comme ñun yàgg nañ ci yëngu xam nañ ko ñu daal di continuer même activité yooyu di ko doxal di ko doxal xam naa lu gudd la ay jaar-jaar yu bari la waaw waaye nag yàlla def na daal ba bi ñu demee ba ci kawit ñu mbokki taalibe yi ñoom ñoo dajoo la rek daal di gis ni comme ñun mati nañoo nekk jëwrin ñu ñoom daal ñoo rafetlu tabb ma ngir def ma jëwriñ ñu ànd liggéeyal Sëñ Tuubaa ci fédération bi nga xam ne moo lëkkale mbooleem daayira yi Sëñ yi nekk ci réew mi yëpp te buñ ko xaymaa mu toll ci ñeent fukki daayira ak juróom lu jiitu loolu nag maanaam mbooleem bàngaas boo xam day dox ci daayira bi maam yor nañ ko doxal ko lu yàgg moo xam président organisation la def nañ ko bu fekkee euh, administration def nañ ko affaire très sérieux def nañ ko mbooleem bangaas boo xam day doxal daayira rek maanaam def nañ ci ba def nañ ci ba doxal ci lu am solo loo xam daal ñen ko siqal ñëpp xam nañ def nañ ci lu am solo waaw. ginnaaw nangu mbooloo mi ba xalaat la tabb la du yow da nga am foo bëgg a jëme liggéey bi fekkoon ñu ngi ciy tudd dara tey lan la. waaw liggéey bi nag bi ñu ñëwee wax de yàlla comme dañ ko ànd ak mbokki taalib yu bëree bëri eh, liñ ci fas yéene rek mooy fi ñu ko fekk moom ñu jëmale ko ca kaw rek ak ca kanam ndax naka jekk dañoo àndoon ci liggéey bi di ko doxal kon nag bu yàlla dogalee ñu dem ba jiitee ba mbooloo mépp doy jiital la loolu ak sant Serigne Touba rek lañ ko def ba pare nag fas yéene maanaam yaakaar ji am ci ñëw ci ñun ak maanaam eh, yéene ji am ci ñun ba tax maanaam ñoom ñu jàpp ni daal liggéey bi war nañ ko mën a jële fi mu nekk yóbbu ko mu gën a kawe loolu lañ fas yéene rek ndax buñ xoolee liggéey yi fi mu toll nii bokk na ci li nga xam ne mu gën a tax mooy kër Serigne nga xam ne am nañ ko fi li ma fas yéene mooy ñu daal di koy defar mu daal di baax ba mel ni mboolem kër Serigne Touba nekk ci àdduna bi yépp bi ci topp mooy maanaam euh, këyiti fédération bi nga xam ne ñoo ngi koy topp di ko liggéey diir bu yàgg ñu di ko topp boobu li ma fas yéene mooy bala ma fee jógee maanaam këyit yëpp génn ba fondation bi lépp maanaam këyit yëpp normal su ko defee tamit yenn activités yi nga xam ni mooy liggéey bi ci lépp lu koy doxal ci taxaw màggal ak surni euh, xasida ak yeneen activités yi ci des yëpp rek benn bu ci ne dañuy fexe rek maanaam ñu avancé ci bu baax a baa incha allahu taala. fédération bi ngir ngeen am ko maanaam lan lay tekki bu ngeen ko amee ak booba ak léegi lu tee mu lijjanti ko waaw xam nga réew mi day réew mu bees lañ ko mën a tuddee ndax li tax loolu mooy boo dee xool ay fondation wala fédération maanaam juddoogu fi comme ci ñun ci ñunu africain yi bariwu fi léegi nag comme réew mu bees te comprendre gunnu te boo dee xool tamit même ñun murid di bareeguñ guñ fi lool ndax boo dee xool biñ fi tàmbali dugg ak léegi yàggut lool kon amaguñ fi ñun yenn possibilités yi ba ba mën a accélérer yi comme niñ ko bëggee moo tax dañuy dox ndànk-ndànk ci maanaam teg ko ci aw yoon teg ko ci norme yi nga xamante ni moo ñuy may liñ bëgg loolu nag moo yéex liggéey ñoom seen liggéey rek moo yéex waaye ñoo ngi ci ñoo ngi ci affaire compte banque yeeg ak maanaam kayitu fédération beeg yépp ñoo ngi ci te këyit fédération bi li tax ñu bëgg mooy soo ko amee dalay may possibilité yu baree baree bari ndax Kër Sëriñ Tuubaa googu ci ngay man am entreprise pour liggéey ko en même temps tamit di nga ci mën a def yeneen activités yoo xamante ni bi tey di nga mën a euh, kayit bi dina la mën a may possibilité yu bari ak nga samp fi daara wala yeneen yu bari loo fi bëgg a taxawal entreprise wala même donte ay bagages la yooyu jëli fii sax di ko yóbbu Sénégal suba loolu lépp dana mën a nekk incha allahu taala kayit bu am solo la woo xam ni ñoo ngi ci liggéey waa administration ñoo ngi ci liggéey baax baax ci njiital Bamba sëñ Bamba jonn maa ngi koy ak mbokk yi mu àndal ci mel ni ñoom sëñ Badou Ndiaye ak ñoom sëñ Lamine ñoo ngi ci bu baax di ci liggéey daal ñoo ngi ci góorgóorlu baax ñu lay ñu dem ci ponk boo xam ni xam naa moo waroon njëkk sax ndax yaakaar naa fi ne mooy waxtaan ci ci ci mbedd yi ci kër yi nekk ci xalaat yi muy màggalu sëriñ Bamba gi defe naa première fois yow nga di ko taxawee bi nga nekkee jëwrinu sëriñ Touba ba tey bu fekkoon tey man nga ñu wax fan ngeen toll ak it guréen gi ndax dana am yow bees yoo xam ne it dees na ko ci séntu tey lan lañ ci mën a déggee. waaw alhamdulilah rabil alamin waaw màggal Touba di wax dëgg ñu nekk. maanaam c'est la première fois pour ñu jiite fédération bi ñu woote ko ndax ñun biñ nekk ci boppu mbooloo mi ak léegi boo ko xaymaa day tolloo ak maanaam eh, fukki weer ndax décembre toujours ci la ñuy def renouvellement de bureau bi màggal gi nag mooy gi njëkk léegi nag fi mu toll fi ñu toll mooy fas yéene dajale mbokki taalib bi yëpp maanaam ñu ànd nekk benn maanaam taxawu bisab Sëñ Tuubaa bi nga xam ni moom bisam la boo xam moom moo woote nañ ko ci santale boromam ñoo ngi def ay safar bu weer bi commencé ba léegi di dem ci daayira yi di waxtaan ak ñoom di leen fàttali di leen xamal di leen soññ ci maanaam addi ji nga xam ne mooy jagal bis bi loolu moom toujours ñoo ngi ci loolu ci activité yooyu ba chaque jour rek ñoo ngi ñoo ngi dem ak ñëw ci mboolem activité yi nga xam ne mooy jëmale màggal gi kanam bokk na tamit ci liñ li nga xam ne tey ji fi maanaam ren ji fi ñu ko fas yéene defee maanaam euh, barab la boo xam ne wax dëgg yàlla mën naa ni bu fekkee mas na noo màggale fu mel noonu tamit maanaam bëriwul démb lañu activé salle bi ba wax dëgg am nañ ko fu yaatu foo xam ne mbooleem lu ma 2000 personnes xañ na fa boo ko defee ñu di ci woo mboolem sénégalais yi nekk ci réew mi yëpp foofu waaye mën a nekk te mën a màggal si rek maa ngi lay ñoo ngi lay ñu ànd màggal nañu la ak note yi ñu ko jox ñaari at yi passé muy euh, Argentine moom moo raw ci diaspora bi mu ñu la déggee kon ren ñi mënees na séntu lu mel noonu ci màggalu ren 2019 bu sobee la waaw alhamdulilah waaw loolu lañu fa yéene waaw moom kay xam nga sëñ tànk sëñ Tuubaa moom liggéey sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw ca kaw ca kanam rek incha allahu taala liñ ci fas yéene mooy maanaam Argentine moom at ay at yu bëri ni mooy jël maanaam première ci màggal diaspora bi yëpp même ren ji tamit loolu lañ ko fas yéene incha allahu taala jël première jëlaat ko rek loolu lañ fas yéene ndax ñun dañoo fas yéene rek maanaam lépp loo xam ne dañuy gën a avancé loo rek maam ñu dox jëm ci loolu incha allahu taala waaw mees na jàpp lu yees loo xam ne dawuñu ko ci gis ngeen xalaat ko ci ren waaw ren ji de xam naa activité yi nag boo xoolee niñ ko daa defee rek xam naa noonu lañ koy defee ndax boo dee xool réew mi fi toll ci ci politique ak coow lu bari maanaam tax na doon nañ xalaat ay mars ay yeneen activité yoo xam ne yu bees lay doon waaye nag comme tolluwaay réew mi ak xat-xati jamono ji maanaam ak diggante bi ñu am saal bi ak fi ñu ko war a màggale xat na loolu moo tax am na ci yoo xam ne yéene woon nañ ko waaye xam naa du du fi xaj du fi xaj waaye nag ñoo ngi koy fas yéene ci beneen jamono incha allahu taala waaw dimension màggal gi nii mu toll ak important bi bu rëy bi nga xam ni am na ko ñu ci wane ku tedd ki liggéeyam bi mu doon occasion boo xam ni itam mënees na ci wane ñan ñooy sénégalais yi nekk fii mais bu ñu gisee médiatisme bi dafa des ci côté tey télévision yi fi nekk xalaatu leen fay télé bu mag mu couvrir ko wala lu ni mel loolu it ndax mi seen ay xalaat. waaw loolu moom ñoo ngi ci doon xalaat ndax euh, waa administration bi ñu yor bàngaas yooyu waxtaanoon nañ ci ak ñoom benn réunion boo xam ni war nañoo amal ay fexe tele réew mi maanaam ñëw maanaam taxawu màggal gi mën a jàllale bisub sëriñ bi. ba ku ci mel ni suñu àlla jaw defoon nañ ay jéego sax ba doon ci jokkoo ak ñoom suñu lemin aussi tamit ay invitation yu bari yoo xam ne ñoo ngi koy xaar ay kilifa yoo xam ne dana ñëw ci bis bi ngir ñu dalal leen maanaam xamal leen kan mooy sëñ Tuubaa lan mooy mouridisme ak mouridisme yan comportement la amee yooyu yëpp ñoo ngi koy préparé am na ay textes tamit yu ngi ci yoo xam ni maa ciy waxtaan ak Lamine démb rek ngir mu mën koo tirer en en espagnol pour def ko espagnol nga xam ni maanaam euh, ñu dégg espagnol ñëpp dañ ko mën a liir man koo jàllale yaatal ko te liñ koy tënk ndax màggal gi ren liñ ci fas yéene mooy thème bi ñu ci fas yéene di waxtaane toujours rek mooy maanaam euh, kan mooy murit ak ak comportement nan la war a mel yow lañ bëgg yaatal ci réew mi bu ko defee ci loolu lañ bëgg bind ci espagnol lu yaatu def ko këyit yu baree baree bari maanaam séddale ko te loolu boo dee xool yi jàll sax liñ ko def bëriwul waaye ren moom damaa wax waa administration pour ñu yaatal loolu maanaam nga xam ni këyit yi sax man mën nañ ko tàmbalee joxe avant ñuy dem ci bis bi incha allahu taala waaw waaw waaw. dañu seetlu màggal gi dafay marqué ay nasaraan ba di leen yobbe sax ñuy dugg ci euh, diina lislaam doon ay murit waaye après fin bi dafa mel dafay des muy lu leen jàlle maanaam comme foofu li may wax mooy est-ce que fédération motul tey mu xalaat daara joo xam ni tey dañ koy tuddee képp koo xam ne dugg nga ci ci ci murit dugg nga ci diin lislaam doon murit tey boo fa demee di gëstu ci ku tedd ki man fa fekk koo xam dana la xamal ngeen tànn ay suur yoo xam ni da ngeen jàngale di xamle lislaam di xam ne kan mooy sëriñ bi loolu it dama gis ni gisagu defagu leen ko lan ngeen ci xaar waaw alhamdulilah waaw loolu moom ñoo ngi ñoo ngi dox jëm ci incha allahu taala loolu moom ñoo ngi dox jëm ci ndax boo dee xool eh, comme dañoo am dañ fa jënd kër Sëriñ Tuubaa war ko amal ay liggéey yu am solo te liggéey yi boo dee xool tàmbale na parce que miiri nañ ko ba miir bi daje léegi nag incha allah li ñu fas yéene mooy bu mu bu kër Serigne Touba gi àggee mhm. fa lañ bëgg a def daara ju mag maam def fa ay archives yu wóor yoo xam ni lépp day tënku ci mbirum sëriñ bi rek nga xam ne boo foo mën a jógee mhm. boo ñëwee di nga fa fekk ab jàngalekat te bëgg na fédération bi am na pospos maanaam coordonné mboolem xale yi nga xam dañoo juddoo ci réew mi yëpp di ay sénégalais mhm. ak ñi nga xam ni maanaam eh, lislaam intéressé na leen ndax kër Serigne Touba kër l'islam la su ko defee ñu def fa daara ju mag di fa jàngale ci espagnol ak arabe ak sa diine jàngale tamit mouridisme mooy lan ak kan mooy Sëñ Tuubaa loolu moom ñoo ngi ciy liggéey bu baax a baax ngir incha allahu taala diir bu gàtt rek dinañ ci def ay jéego incha allah yaa ngi tudd kër Sëñ Tuubaa lu bari ci say wax bu ñu xoolee fi ne miir boobu nga tudd rek moom moo fa nekk fii ne yaakaar naa li mu xaalis mu ngi fii boo xam ne daf ci jëm ba tey liggéey bi dañu gis ni avancé wul dafa taxaw lu tax waaw waaw liggéey bi boo dee xool li ko tax taxaw mooy bokk na ci mooy activités yi ma waxoon léegi rek mooy maanaam kayit yi nga xam dañ ko war a war a mën a jokkoo ak ay entreprise pour ñu mën a def ay architecte jokkoo ak ay écrivain ngir ñu mën a def too bépp kayit boo xam ne dafa aju ci liggéey bi maanaam loolu autorisation yooyu la amagul su ko defee waaye am na nag lu wax de yàlla fi mbokk taalibe bi dajale lu am solo loo xamante ni bii ci kër Sëriñ Tuubaa gi la jëm te incha allahu taala bu ñu amee programme bu wóor rek dañuy daal di ci tab bi ndax tamit liggéeyu kër Sëriñ Tuubaa ak ni ñu ko yéenee du doon liggéey bu ndaw boo xam ne tey jii maanaam da nga yàkkamte ba sorxo sorxo ko su ëllëgee nga bëgg ko rectifier fekk jàll na ba pare waaw léegi nag loolu moo tax ñu bëgg ko teg ci aw yoon jaar ko feen ko war a jaar bay maanaam autorisation yi ñu war a am yëpp ñu am ko ba dajale li ñu war a liñ soxla lépp ci ngir tàmbali ko su boobaa rek dañ koy tàmbali daal dox jëm ci incha allahu taala ñu ngi lay gërëm bu baax relation fédération bi ak euh, liggéeyu kër Serigne Touba yi mën naa tudd ni jébbal daayira Sëñ Muntaxa tudd ay secteurs yoo xam ni itam ñu ngi liggéey ci murit gi Touba ca kanam ak yeneen yu bari yoo xam ni itam dafay mën naa tudd Moukhaddamatoul Khidma ñu yore liggéey jumaa ji loolu it lan moo ci seen taxawaay. waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñoo ngi ciy sant Serigne Touba bu baax ndax leen lu ci nekk rek ñoo ngi ciy amal ay liggéey yoo xam ni ndax fédération bi boo dee xool yooyu dafa bokk ci nga xam ne moom fédération moo ko couvrir ndax lu ci mel ne Touba ca kanam gi am na benn kuréel ñu ko jox boo xam ni Serigne Pape Soda moo ko jiite. maanaam weer wu dee rek comme ni ko Touba ca kanam di soxlaa ci adduna bi. ndax ñun ñoo ngi ci groupe bu mag bi bu Touba ca kanam bi nekk bi nga xam ni adduna bépp ci bokk nekk maanaam foofu même Pape Sodo mu ngi foofu su ko defee nag ni ñu koy soxlaa ci activité yooyu maanaam Pape Sodo mu jiite loolu ak kuréel bi mu àndal ñoo ngi liggéey ci loolu liggéey yu am solo ba dinañ fexe ba weer wu dee rek lépp loo xamante ni bi daje na fi maanaam dinañ ko jël dugal ko ci weer woowu ñu xam ni Touba Argentine moom saa yu rek day dugg ci liste bi nga xam ni maanaam moo moo am ci weer woow lu ci mel ni mu Moukhaddamatoul Khidma aussi ñoo ngi ciy liggéey di ci soññee boobu tamit ba bu yàggut sëñ Abdoulaye Bousso Mokhtar ñëwoon na fi wax dëgg yaatal fi liggéey bi ba bàyyi woon fi ay carte ak i carnet ba am na ay daayira yoo xam ne sax jotu na leen cee jox boo ak léegi sax ñu ngi leen di soññ pour xaar incha allah taala fas yéene ci màggal gi ñu dugal ci ndax Moukhaddamatoul Khidma boo doxee liggéeyam maanaam euh, at mu nekk ñaari yoon la ciy woote mooy bu koor gi ñëwee ci lay dajale addiya yi nga xam ne dafa jëm ci koor gi muy ndogu yi beneen bi ci des mooy màggal Tuubaa gi bu ñëwee préparation màggal gi ci sensé lamp ak pile bu lakk ak maanaam lu ñu war a sensé kon moom wax di yàlla moom it ñoo ngi koy ñoo ngi ci baywaar suñu kem kattan di ci soññ mbokki taalibe yëpp ñu di ci gën di góorgóorlu ndax dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne dafa nekk farata ginnaaw loolu aussi tamit fédération bi dinay taxawal journée xasida boo xamante ni da koy amal ci réew mi ci at mu jot ba ren jii gis nga bi ñu ko taxawalee La Plate léegi yàggul fexe na ba bokk ko ci ak waa réew mi nga xam da koy décentraliser mu tasaaroo ci réew mi ba wax dëgg yàlla am na ay gox yoo xam bu ñu ko fa defee suñ su jàllee dañ koy indiwaat capital génnewaat ko ba ren jii ñoo ngi xool sax feneen fu ñu ko mën a def foo xam ni du bokk capital incha allahu taala bokk na aussi tamit ci li nga xam ni fédération bi yor na ko mooy lu ci mel ni maanaam euh, Kër Sëñ Tuubaa gi ndax Kër Sëñ Tuubaa gi fi mu toll nii kenn mënta tudd kenn mënta dox moom te tuddoo ko ndax dañoo yàgg a yàgg yàgg ñoo soxal booba léegi ñu liggéey ci lu bari def ci jéego yu baree bari wax dëgg yàlla ba yàlla dogal mu toll fi mu toll kon li ñu fas yéene rek mooy ñaan Sëñ Tuubaa rek mu jàppalal ñu lépp loo xam ne day indi ak jàpp jàppandal ngir ñu mën cee avancé bu baax a baax incha allah yàlla na ko yàlla dogal ñu ngi lay gërëm bu baax nu gis ni it ñi nu jiitu ci wàllum tukki bu ñu tuddee Afrique du Sud defoon nañ liggéey bu am solo ci dëkk bu sell bu ay làmp siin gi nga xam ni itam bëriwul ay sénégalais gis nañu liggéey bu ñu def ci jumaa bi ndax mënees na séntu tey Argentine ñu def loo xam ni dañ naan lii tey waa Argentine ñoom ñoo ko def ci Touba loolu ndax sa sa xalaat la waaw waaw loolu sama projet la moom loolu moom wax dëgg yàlla avant may nekk jëwriñ bi may nekk maanaam bi may nekk euh, commissaire au compte maanaam jiiti ko wax dëgg yàlla laa tàmbalee wax gaañ leen li mu bëgg daal mooy maanaam Touba moom ci jumaa ji ñu def fa lu rëy loo xamante ni bii moom maanaam moom dañ koy defal sëñ Touba. loolu man jokkoon naa ci euh, sëñ Abdoulaye Bousso Mokhtar sax bi mu fi ñëwee. rek ñoo ci ciy waxtaan loolu moom lu ma sama lu ma tànn la loo xam ni maanaam lu ma neex la moom bëgg naa réew ñëpp maanaam xam ni loolu moom. lu mënta ñàkk la te incha allahu taala dañ ko fas yéene def ndax loolu dafa bokk ci liggéey yi nga xam ni ko defal sëñ Tuubaa ci jumaay ji maanaam eh, da nga ci daal di am gërëmal sëñ Tuubaa ndax ndénkaan dafay war ñun ñëpp maanaam ñu di ci jàpp di di ci doxal ci lépp loo xamante ni bi ko yéene defee ni comme mboolem daayira yëpp di defee parce que ñoo ngi topp mm-hmm. ko di ko ndax daayira yi gis nañ ay daayira yu yu mag dafa jëf lu am solo loo xamante ni bii wax yàlla vraiment ñun it am nañu yéene jooju daal incha allahu taala waaw. relation bi ak euh, fédération bi ak relation fédéral yeneen fédération yi nekk ci latine bi wala yeneen daayira yi nekk ci latine bi bu ñu ko méngalee ak euh, yeneen réew yi tey bu ñu xewlee ni ñuy dugalante bu dee Europe la ñii di jóge France ñuy jóge faneen ngir daje ci benn jataay dundal la ñuy def loolu it dama gis ni dafa manqué fii lu tax mu loolu doxal. waa loolu moom wax de yàlla ñoo ngi ci liggéey ndax boo dee xool fii latine bi ñu nekk boo dee xool waa Brésil ñoo fi ñoo fi nekk ak waa Chili te boo dee xool Chili am na benn daayira boo xam ne ñoom intégré wu nañ ci ci suñu fédération bi parce que at jàll yëpp ñoo ngi doon participer Brésil tamit wax dëgg yàlla Cheikh Ndiaye jëwriñ Cheikh Ndiaye ñoo ngi koy nuyu moom it wax dëgg yàlla suñu suñu xasida bi amaloon dafa dafa invité woon naa ko ci moom bëggoon a ñëw far yàlla dogal moom mu mujj am ngànt mais moom tamit wax di yàlla bi seen suñu xasida bi ñëwee invité woon na ma man mit ba ma amoon yéene dem ci waaye farit man mu mujj am ngànt waaye daal li wétuwóor daal mooy ñoo ngi déggante ñoo ngi jokkoo ñoo ngi bokk ay xalaat ci yu baree bari ba bu yàggul rek ba barki démb rek ñoo ngi ñoo ngi déggante daal ñoo ngi gën di waxtaan ngir jëmale relation bi karam incha allahu taala pour ñu gën ko yaatal daal ndax liggéey si moo tool foo xam ni maanaam waxuma sax euh, latine bi waaye àdduna bi yëpp dañoo war a jokkoo maanaam mboolem jëwriñ yëpp dañoo dañoo war a jokkoo te boo dee xool Touba ca kanam bi xaw na leen a boole ci ci ci yenn group yi nga xamante ni bii mboolem kuy jëwni Sëriñ Touba yaa ngi foofu su ko defee kon loolu dana dana war ñun ñëpp ñu gën a yaatal liggéey bi gën koo fonk gën a gën ko gën a fexe ba gën a ba gën a ba murit a gën a a jàppante su ko defee rek doole ji dana dana gën a yokku te dana tax liggéey yi gën a gaaw activités yi gën a gaaw incha allah taala loolu moom ñoo ngi ci liggéey baax pour relation bi gën a yaatu incha allah li mu ñeen fukki fédération bi tënk Euh, ndax seen liggéey egg na ci recensé tey que ni ñaata membre moom moo nekk ci fédération bi daayira bu nekk euh, tey ñaata nit ak it bu dee tudd ak santi li boo xam ne mënees na wax ni mille la ndax loolu mi ngi tekki ni ñi fi nekk ñoom ñi ngi bindu ci daayira yi di dox bu baax wala tey bu fekkoon yaa ngi ñuy defal bila di noté li nga xam ne bindu nañ ci daayira yi nan la toll. moom wax dëgg bi ñu nekk euh, secrétaire sénéral daan nañ ci liggéey di ci xayma waaye bi ñu xayma fédération bi tey. maanaam ay temps li ci nekkoon ci ay personnes maanaam yoo xam ne daal mën nañoo jàpp ni ñi ñoo ngi dox maanaam lu mu gàtt gàtt matoon na 300 personnes jëm 400 personnes yoo xam ne moom ñoo ngi doon dox mais nag waaw fédération bi moom li lëkkale daayira lépp ci mbooloo mi maanaam moom ëpp na 3000 personnes maanaam fédération lépp waaw mbooloo mi waaye nag ñi ciy dox nga xam ne ñii ràññee na seen dox bu wér a wér moom boo ko doon xayma ay naa jëm kaw tuuti rek maanaam du ko du ko passé ndax mbooloo mi moom wax yàlla bari na mm-hmm. waaye nag pas-pas yi dafa dafa a oyof da ci am ñoo xam seen pas-pas dafa oyof lool mm-hmm. waaw loolu tax moo tamit ñoo ngi continuer mm-hmm. waaye nag di soññante ak mbokki taalibe yi ndax am na ñoo xam ne xëy na dinañ yéene waaye liñ yéene duñ ko mënee noona waaye ñun dañuy continuer di naxante ñoom rek fexe mbooloo mi di yokku daal wax di yàlla ñoo ngi yokku bu baax tamit wax di yàlla ñoo ngi sant seen bu baax nga xalaat di leen tolluwaayu liggéey bi ak jubluwaayu ak doxinu daayira yi ngir convaincre leen ñu ñëw di participer ci daayira bu baax. waaw waaw loolu moom toujours ñoo koy def loolu ñoo ngi koy def parce que boo dee xool même karawaan eh, bi ñu programme yi nii ci màggal gi maanaam bokk na ci li nga xamante ni bii moo ko moo ko moo ko waral mooy dem ci sen dem ci daayira yi ak kër yu mag yi sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom maanaam xamal leen daayira bi te bokk na tamit ci sarti maanaam daayira bi ak fe bokk na ci sarti fédération bi maanaam fépp foo nekk rek ngay soññi mbokki taalibe ya féete ca gox booba ndax fi mu toll nii fédération bi su wootee benn jëwriñ bu nekk maanaam eh, buñ ko soññee moom mooy soññi mbooloom su ko defee mbooloo moom toujours dañuy wax ci fédération bi nañuy fexe mbooloo bi kenn ku ne sa daayira nga gën di intégrer nit ñi pour ñuy gën di fonk maanaam liggéey bi gën ko bàyyi xel bu baax a baax loolu moom ñoo ngi ciy liggéey ñoo ngi ciy soññi mbooleem jëwriñ yi nga xam ne nekk ci réew mi yëpp wax dëgg yàlla lay gërëm baax ci côté social it naka la ngeen ci doxe bu ñu xoolee réew tey tudd naa lim bi 4000 ci la jamono man ak mën di ak yi nga xam ni day xew nit di wàññeeku nit di feebar côté social naka ngeen ciy dimbalante. waaw alhamdulilah waaw social moom ñoo ngi ci liggéey bu baax a baax wax di yàlla ndax côté moom boo dee xool moom at mu jot moom dañ ci def jéegu yu am solo am solo ndax wax di yàlla boo dee xool socialu daaw ci fédération bi lu mu gàtt gàtt daggal na dimbali na ay nit dimbali na la toll ci fukki nit ak ñeent yoo xam ni maanaam kenn ku ci da nga am ñii dañoo feebar ñii am problème nekk hôpital ñii am ay jafe ñëpp mu taxawu leen ba kenn ku ne mu fexe ba daggale billet nga dem Sénégal social bii jàll tamit ndox dëgg boo dee xool ren ji lu mu gàtt gàtt fi mu nii lim daggal ci nit bi lu mu gàtt gàtt mat na juróomi nit yoo xam ni biñ tàmbalee léegi ñoo ngi ñoo ngi liggéey ci loolu aussi ñoo ngi saytu tamit mbokki taalib yi nga xam ni dañoo nekk ci réew ñu jël seen bagage ak ñi nga xamante ni bii dañu dañoo dañoo nekk hôpital feebar wala dañoo am seen problème bopp boo xamante ni bii fédération mu ngi def ay jéego di leen gëstu di leen di leen di leen dimbali kem kàttanam léeg-léeg mu yëkkati lim bu am solo jox kenn ngir maanaam mu àndaat xelam dalal ko bu dee fu mu mën doon mu fekk ko fa jox ko li nga xamante ni bii moom lañ ko dajaleel social moom ñoo ci liggéey bu baax a baax mm-hmm. ñoo ngi ciy lu bu baax wax dëgg yàlla beneen côté boo xam ne ràjjeeku na léeg-léeg ñu koy gis ci mbedd yi ci euh, jaaykat yi ak euh, municipal wala police ak yu ni mel te fii bu ñu xoolee 90 pour cent yi mën naa wax ne mi ngi ci mbedd yi loolu am ngeen ci programme boo xam ne dañ gën sensibiliser nga xam ne ñoom ñooy wàcc fexe jëflante jëflante bu rafet ak ñooñu. waaw loolu moom toujours ñoo ngi leen ci soññ ci daayira yi ndax euh, toujours bu ñu demee dayre bokk na ci kàddu yéen fay yëkkati mooy lépp loo xamante ni bii maanaam moo nu may jàmm ci réew mi rek maam ñun ñëpp nañ ko bokk bàyyi xel ànd ak yar ànd ak teggin parce que tamit da ngay gis ni même ñi nekk ci mbedd mi nekk ñu fi nekk gënalu leen am ñoom buñ sañan maam duñ fi nekk waaye nag kon ñëpp mun xëy xëy génnanoo ci mbedd mi moo tax wax dëgg yàlla ñi mën a génn ñoo ngi génn parce que boo xoolee bu njëkk ak léegi maanaam bokkul parce que sénégalais ñoo ngi góorgóor lu baax ñii ngi dem ci àll bi ñii ngi ubbi ay place ñii ngi dem di di tasaaroo ci yeneen gox yoo xam ne ñoo ngi fay ñoo ngi fay liggéey waaye nag boo dee xool ONCE moom comme nit ñi fi lañ ëppee moo tax maanaam violence bi xaw fi ëppee waaye toujours nag ñoo leen di yee di leen wax ni leen ba maanaam xeex bi moom bu leen koy def maanaam leen di leen di xëccoo bu defee dee leen moytu ñoom it wax yàlla ñoo ngi moytu seen kam kàttan léeg-léeg nag moom moom yëf yi jaxasoo waaye du waaye jaxasoo mu jaxasoo jaxasoo ñoom en tout cas daal dinañ moytu seen kéem kattan léeg-léeg nag policiers yi aussi ñoo leen di tooñ ndax léeg-léeg ñooy fekk defuñu dara ñu bëgg laa dóor wala bëgg jël sa bagage ci anam boo xamante ni bii du du gënal wax di yàlla xam nga góor moom foo ko fekk rek bañkat rek la mën a doon day am loo xam doo ko doo ko mën a d'accord waaw loolu rek moo war waaye nag ñoo ngi leen di sensibiliser pour ñu jéem jóge ci loolu maanaam dem ci leen aussi tamit ñoo ngi ñaaral ñi nekk ci mbedd mi yëpp ñu jóge ci kenn ku ne suñu wax defal la tawféex ba ba ba daal dootoo fi nekk di di yori bagage ak yooyu parce que dañoo war a ni maanaam Sëñ Tuubaa moom lépp comme dañoo war góorgóorlu liggéey bu baax dem tasaaru ci réew mi ubbi ay place dem toog fa liggéey su ko defee loolu kenn ku ne na xam ne loolu mooy li gën a gaaw maanaam li gën a gaaw mooy kenn ku ne góorgóorlu fexe bam am place bu baax toog fa di liggéey man di liggéey sëñ Tuubaa bu baax a baax ñoo ngi ñaaral ñi ci mbadd bi ñëpp daal ñu jóge ci jàmm incha allahu taala dem ci loo xamante ni bi moo ko gën incha allah ñi ngeen bokkal ci côté ñuy doxal muy euh, association Sénégal Argentine bi fii ñu ngi dox pàcc bu am solo mais gis nañ ni itam yéen yéen a ëpp mbooloo yéen la mbooloo mi gën di nangul bu baax yéen a ngi xalaat di am relation ak kilifay réew mi lu ci demee ni migration ak ñi nga xam ñoom ñoo jiite espace wala police boo defee itam di waxtaan ak ñoom ci yi nga xam ni itam dana di ñëw wala yi passé yi ko doon indi loolu yow en tant que jëwri ndax yaa ngi def yaa ngi saytu yaa ngi gëstu relation boobu di ko dox ak ñoom. waaw waaw alhamdulilah waaw parce que xam nga fédération bi sax boo dee xool moom toujours mu ngi liggéey ak euh, ay kilifa ci ci ci réew mi. ndax boo dee xool acte bi tey jii maanaam benn benn bànqaas la boo xam ni bokk na ci ñi liggéeyal Sénégalais yi ak association sénégalais bi fi nekk te Moustapha jiite ko euh, Arfan jeeju ñoom it wax dëgg ñoo ngi ñoo ngi dimbali Sénégalais yi su ko defee nag ñun en tant que jur yi moom fin ci mën a taxaw mooy maanaam boot boole boot ñëpp rek képp koo xam daal am nga njariñ loo mën a indil Sénégalais yi ñun ñu ànd ak yow ca loola képp koo xam ne am nga loo xamante ni bii lu leen nar a la wala lu leen yàq lu leen nar a yàqal maanaam su boobaa dañuy xeex loolu mais lépp luy jëmale Sénégal ay kanam rek ñun ku mën a doon foo mën a ne boo ko ëndee rek maanaam mën a ñoo ànd ak yow ci loolu ngir ñu ànd dimbali Sénégal yi su ko defee tamit wax di yàlla bu dee affaire relation ku ci mel ni Moustapha wax di yàlla am na relation ak yu bari yu bari tey jii su ma ko woon téléphone ne laa bëgg ak nangam da cay taxaw baax a baax en tant que Bamba Dione aussi ci acte bi ñoom it eh, comme ñoom wax di yàlla comme noonu rek moom ci liggéey bi la bokk mais moom it am na relation ak eh, kilifa réew mi moom it boo ko woo tey jii ni ko nangam laa bëgg da cay taxaw kem kattanam am ma nag jëmmi maanaam fédération bi mbooloo mi yor gém ko yor nag loolu moom mbirum Sëñ Tuubaa la ndax maanaam waaw mbirum Sëñ Tuubaa moom moom mbirum Sëñ Tuubaa la bokkut ak dara ndax Sëñ Tuubaa moom dafa moom xol yi xol la moom moo tax nag nekk yoo xam ni itam dafa lëkkale immigré maanaam kenn ku ne réew ma nga jógee mën naa tudd ne diine ja nga yor wala culture ba nga yor ñoom nag ñooñu dañoo booloo tënku ci genn kuréel goo xam ni itam dañuy suuxat loola defe naa ci lu yàggul sax jàppoon ngeen daje boo xam ni jàppoon nañu ko ñoom boo xam ni dañ ko waroon daje ngir daal di lancer nañu ñun kat ci lii la ñu nekk nañ ñu ko téel boobu mënees na dégg ni kon tarixa murit mi ngi ci biir wala waaw boobu waaw boobu parce que boobu boo dee xool euh, biñ ko lancé fan yële ci ginnaaw Moustapha boobu dama woon ñu waxtaan ci mu expliqué ma wax di yàlla moom mu def ci jéego yu am solo bi mu demee foofu euh, waxtaan ak ñoom bind fa leetar wax présenté fa suñu communité ndax comme sénégalais yi la fi nekkal moom it wax yàlla ci côté boobu da ciy bay waar wu am solo ba tax même réunion bi bi ñu ko convoqué le le 18 bi ci la ma woo waxtaan man wax ma lépp leeral ma ni mu demee maanaam euh, ni ñu war a jaxasoo ak religieux yi fi nekk maanaam pour weccante xalaat ba pare euh, kenn ku ne xam li nga yëngu sa morom ñu nit ñu waroon faa dem présenté wu. far yàlla dogal même réunion boobu dafa mujj maanaam fomb. waaye Moustapha moom moo ngi continuer di dox ci loolu bu baax bu baax waaw moom toujours mu ngi liggéey ci loolu. tekk ni li ñu amoon ci waxtu li ci des bëreetul bu fekkee am na lu ñu la laajul te nga bëggoon ko laabiré lan lañ ci lan ciy déglu. waaw loo waaw ñoo ngi sant Sëñ Tuubaa bu baax xanaa di di di leen jaajëfal bu rek wax yàlla ndax lii moom lu ñu bëgg la lu ñu neex la parce que jot gi ak temps bi moo dul am. waaye ñun buñ sañan aussi lu ñu xam kës néew ñu ñëw di ko partager ak nit ñi. di ci yee nit ñi li ñu xam néew aussi di déglu nit ñi. boo ko defee nit ñi di ko di ko topp lii daal en tout cas am nañ ci mbégte lu ñu neex la daal wax dëgg yàlla. Hmm. waaw li may wax daal mbooloo mi nga xam ne jiite naa leen mooy euh, li ma leen di dénk daal mooy ñu ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla bu baax a baax gën a góorgóorlu ci liggéey bi bu baax te bañ koo foyee gën a maanaam ànd ak yar ak i teggin akuk dal fu ngeen fuñ mën a nekk euh, ba pare gën a jaxasoo di gën di dimbalante suñu biir. ba pare bañ xeexante bañ a bu buñ ko defee daal lépp loo xam ne bëgg nañ ko rek maanaam dañu ko am kenn ku nekk koo gis nga jàppe ko sa moroom juboo ànd nekk benn comme ni ñu ko alxuraan digale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digale ñu ko Sëñ ko noonu su ma sañan daal ci yoon woowu la ñuy aw ñun ñëpp ñu ànd nekk benn ànd liggéey bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo te fonk liggéey bi Sëriñ Tuubaa bu baax baax ndax loolu suñ ko defee rek ñun ñëpp suñu ndam lay doon te suñu yokk lay doon ndax ab jullit moom mënta avancer mukk te lu dul dafa ànd ak mbokki jullitam ndax kenn nit moom munu dara mbooloo mu mbooloo maanaam mooy doole bu ñu àndee yëkkateendoo tegandoo rek lépp loo xamante ni bii song nañ ko rek mën nañ ko daan incha allahu taala waaw. ñu lay gërëm di la sant bu baax. waaw baax na jërëjëf macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.